Diouf flag bu ne ñu ngi ko tuddee honorable Souleymane Diouf waaw waaw boo déggee wax ne Gambien nga ñi ñu naan sénégalais nga waaye ak nu munti doon daal ñu déggee ko sa gémmiñ waaw ne laa leen man waa Baara suma yaay mu ngi may dégg mu ngi Baara dama dem Sénégal pour jàng métier waaw dama demoon pour jàng métier foofu ndax yow mos ngaa bëre Gambia ah, bii mooy suma première fii nii bëre nga jëlee fi ndam nan la mel si yow tey waaw sant yàlla rek bu baax sant yàlla rek waaw. lan la la bëre bi jaraloon. waaw jaraloon na ma lu nekk ndax sa premier combat xam nga ma def émission ñëw laaj ñu bëri ñu bëri ñu ne man xamuñ ma euh, kon bu yàlla defee ba ma am combat bi maa ngi profité di nuyu promoteur bi bu baax. yow kan ngay laaj sa jamono yi. non man fuñ toll nii nee naa la nee naa la lamb bi tollagul foo xamante ni damay laaj kii damay laaj kii damay. toll na foofu de pour lambi gambi passé na foofu de la waxal kan ngay laajte. non man fuñ toll nii ku ñew rek ñu jibo rek ak suma menacé rek xam nga black african pare pour beur ak ñom african noir xam nga black african waaw dina ko seetaan na ko gis ni rek nga ngaa ak mom comme lima la wax deggo lima la wax déedéet dégguma la wax taamu ma loolu taamu la man dama lay lañ ndax yow bu nga bëre ak ki nga xamne boy black african waaw wala dede waaw lima la wax kay jexal na wax taamuma kenn ku ñew bax na kon kay mom mu ngi ci bir kenen nag ci bir kenen ci bir yow tontu lo ba yow da nga ragal black african because yow bu dee da non non man ma nga ne ma ne man Black African pare naa pour bu ne bi ma bëri kenn ñemewu ko soo yow yaa ngi nii yaa ngi benke ñenke dama bëggoon nga jaar si bi yow ñeme nga Black African da ñemewuloo Black African waaw li ma tontu nii li ma li ma questionné nii bu ko promoteur yi déggee amaan na danañ ci sawat amuma ku may taamu promoteur amuma ku may taamu boo ñëwee seet si ma ah bo ñu waxtaan juboo rek ku mën a doon nag na nga dem jëli ji yëkkani sa mu ñëw Yékini kay jeexal na wax. yéen yow bàyyi ngay wax laay dama ne la yow ñemewuloo. waaw dañuy kontaan nuyu la gërëm la en tant que promoteur tey moom laay waxee Sansone production Africa Noir rek na taxaw parce que tey dama ñëw ci làmb ji doon waajal làmb on le temps de février mais ma gis ne am na làmb yu war a am te seeram nga war a bëre waa CAPS ñu ngi indi ay làmb ñoom Moussa ma delloo suma bos pour rek jàppale leen tey di first time ma gis action gis naa ni la bëreem nekk na bëre bu rafet te jàmbaar la mais daal africain noir rek nii combat rek lay wër wër na tas ba sonn mu ne mënut a am. la ma gis action te la ma gis si moom saf na ma neex na ma parce que gis na am na fit ñime na te dóorkat la gis naa ci moom combat gis naa ci moom mbër. te borom doole la. te borom doole la kii tamit mbër kaamil la parce que bëre naag ay mbëru Sénégal ku mel ne cartouche kon ñoom ñaar dinañ neexoo. yow daal pare nga pare naa ah, yow nag kii nga xam ne mooy action jamono yi mu ngi nii taxaw te gis nga ne ku am doole la ku mën a la ku mu nga naaj ndax maa teg suma bët ndax yow pare nga pour bëre ak kii nga xam ne mooy action ndax action ba ñu naa di cartouche action dafa ñu naa di cartouche man soo bu di nekk bi dama ko ubbi mbor mu ñemee na duga si rek ñu bëree man action mi ragaluma ko action bi su 5 minutes soo amee 5 minutes rek mbokk yi di leen fàttali nag kii ma taxawal nii mooy Sokola e e sokola nak mo jele mbur yi jele len fofu nonu sa kasamas duñu def dara dudut laaj e eh, sokola mang len di fay lan mo waral nga andi eh, mbur joge senegal pour ñu ñew beure fi ni oh beugal gambien rek lan mo ta train lo gor ngay train jigen uh man train na gor ak jigen yep kon mbor nga dal mbor la ba tay ba elek ya tudu nak nga ne e sokola ma ngi tuddu e sokola way la dan kagne ban tour len len dan jox la euh, la laa jox yow pour sooy bëri. chocolat rek. chocolat kese. ki nga xam ne mooy Fatou Sénégal jaane teewu fi waaye ki nga xam ne mooy Biné moo ko fi teewal su ko defee du ñu def dara lu dul bàyyee ko ak kàddu gi ñu ngi lay nuyu oncle Biné. Eh, maa ngi leen naa fay di leen sant di leen gërëm yow moom lañ laa bàyyee yàlla parce que yow kenn munu laa fay parce que tey loo gis mu sotti ci lu demee ci mu mbóori ak yeneen lu mu mën a mel yàlla ak yow sawar gom nga sa liggéey bugg nga sa liggéey te farlu nga te yow ku am jom nga ku am fayda nga kontaan naa trop sa mbir njëkk balaa maa continuer ñaareel bi mooy ki nga xam ne moom mooy ki organise li mooy faatu Séméga Fatou Séméga nekk naa ñun suñ jabar man jabar la ci man parce que suma rakam mooy jëkkëram Fatou Séméga fonk na ma te mbaadiŋol sayinse bula bakari fati noma kaca programme ola aniŋ haji jawara next on gts Bambala. use of flaxseed is quite essential for a healthy life because flaxseed is nutritious as well as beneficial. Flaxseed proves to be the best prevention for cholesterol, blood pressure, asthma and joint pain. About flaxseed, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, Except death, flaxseed has the cure to every disease. That's why a measured success of over 200 products, now Himani presents Flaxseed Products range, which includes flaxseed oil, and flaxseed soap. Keeping your daily needs in mind, Himani black seed products are prepared after a profound research on hygienic principles. We mean it when we say, live natural with Himani Herbal. Daily use of flaxseed is quite essential for a healthy life because flaxseed is nutritious as well as beneficial. Flaxseed proves to be the best prevention for cholesterol, blood pressure, and joined Spain. About black seed, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "Accept death, black seed has the cure to every disease. That's why, a measured success of over 200 products, now Himani presents Black Seed Products range, which includes black seed oil and black seed soap, keeping your daily needs in mind. Himani Black Seed products are prepared after a profound research on hygienic principles. We mean it when we say, live natural with Himani Herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbaɗi juɓe laalo eyi eh, ngal ko toon kal bisimillahi nakaja programme o ñinto télévision o loko loko ñintomo peɗum fanan alnal mbaɗe malam bakari fate eyi eh, ngalum tan mbaɗa soto jang eh, bawo gambiyankolu ngayim falle ko dolu banta kajim kañum programme no bake